di bu baax ak nuyu kilifa ak daarul xuddus sëñ Ahmadul Muxtaar ak mboolem njabootuk Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp di siyaar bu baax a baax sëñ Ahmadou Mbacke Ali di yëkkati sunu kàddu rek muy kàddu fàttalente ci jàmbaari lislaam kenn ci njaboot gi di sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi ñuy jub ay bisam war ko cee ko buñ ne fàttali nag mag ñi ñoo ciy ko waaye gone yi dañ ci jànge la tax ñu di ko fàttali it mooy jamono da koo soxla li daje ci moom ci makaarimul axlaq jamono daf ko soxla li daje woon ci moom ci nangu kilifteef ak nangoo toppe jamono daf ko soxla li daje woon ci moom ci sàmm ormay sëñ Tuubaa ji loolu jamono daf ko soxla li ci moom ci xeeti ngor ak nangoo liggéey loolu jamono daf koy soxla li daje ci moom ci nangoo yanu ak njaboot ak sonn ci ñoom ngir ñu jub loolu jamono daf koy soxla mu doon nag doomi Cheikh Mouhamadul Moustapha li ko tax a mel noonu itam mooy dañ koo waajal dañ koo tànn Cheikh Mouhamadul Moustapha mi waajuram dafa waxoon ni duma jur ku ñàkk jom du ma jur ku yaafus loolu nag la ko may mooy daa tànn doom dañ koy tànnal waajur wu jigéen noonu itam lañ koy tànnali waajur wu góor loolu nag doom mënalu ko boppam waajur a ko man waajur wu ci nekk yaa xool fa nga bëgg sa njaboot bàyyi ko fa moo xam góor la moo xam jigéen la Cheikh Mouhamadul Moustapha nag néeg bi mu bokk ca la dellu tànn ca te néeg boobu yi ñëpp xam na leen ci ngor ak diine ndax soxna xari maam Modou Ndaak Diané lañ ko jëkk a jox mu am fa yaaba xari maam gannaaw ba mu fa bàyyikoo la door a dem ci tafsir Matar Binta am fa soxna Aminta Lo kon yaaba ak soxna Aminata Lo ñoo bokk jenn ndey te bokkuñu baay yaaba moom yi nag moo jur xari maam mu ndaw ñu jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mu am ca sëriñ Abdou Salaam am ci sëriñ Aliou am ci sëriñ Ahmadou Mbacke Tindodi mii nga xamante ne ni moom lañuy ñuy fàttaliku mu gane àdduna ci 1924 ci Touba yàlla dogal itam waa juróomu jigéen woow yi teel a génn àdduna loolu moo soob suñ boroom waa juróom wii di Cheikh Mouhamadul Moustapha am ci moom ak ñeewant taf ko ci boppam waaye ñeewante googee lépp nag teewut mu jaarale ko barab bi ñuy jaarale doomi soxna muy jàng alxuraan jàng xam-xamub diine ñu yar ko tàggat ci ay cëram bam nangu koo jëfe tàggat ko ci liggéey bam nangoo futtiku daan dooleem tàggat ko ci doylu ba lu mu am nangu nangu man caa jàpp tàggat ko ci itam ci bokk ba lépp lu ko suñ borom jox mu nangu ko bokk ki bokkam bokk kook ñooñu lislaam bi mu jàngee ci réew mi ba pare sëriñ bi yóbbu na ko gànnaar ak bokk yi mu àndaloon foofa itam am nañ fa ab diir ci sàkku xam-xam ak it jàngale fa ak tumuraanke ndax regg rek la daa jafe moo tax am barab yu ñu leen di jaarale yoo xamante ne nii bu ëllëgee ak lu jamono soppiku soppiku danañ mën a maîtriser seen bakkan ba mën a sàmm ndono liñ leen fi bàyyeel noonu la doon dunde ak waajuram bokkoon itam ci ñi ko gën a jege soxna màggat Mbàkke mi Cheikh Mouhamadul Moustapha yoroon te mi doomi maam Cheikh Anta moo ma nettali ni ma sëñ ma doonoon na bëkk néegub Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ma loolu sax mos naa koo laaj sëñ Modou ni ko waaw nu ñuy jure doom ba pare def ko bëkk nekk mais sëñ Modou ni ma Ahmadou dama koo ñeewante loolu taxoon na mu sës ci moom sës goog yi mu sës ci moom nag tax na mu donn ci moom jikkoo ak melokaan ak doxalin yu bare bare bare bare Cheikh Mouhamadul Moustapha ko miin xam ni ci sunna la doon dox ko miin xam ni ci ak nite la doon dox ndax moom la ko sëñ bi fàgguloon te moo di aw sasam te sasam wooyee booyut njaboot gi nga xamante ni ñoom la jaboote te ñu doon sosi ci moom it ci loolu yi la leen yar sëñ Ahmadou mii nag foofii la féete woon Cheikh Mouhamadul Moustapha foom fi mu sa nekk ma fa ak moom ci ak nite ak taxawaay rek ñuy wax benn yoon bu gouverneur général de wër àll bi ba jaar Taïf seet Cheikh Mouhamadul Moustapha fekk fekku ko fa waaye booba sëñ Ahmadu la fa fekk mais sëñ Ahmadu ko teeru teral ko ba muy dem mu takk fas gunge ko ba mu génn dëkk ma mu door a ko gouverneur général bi ñu tasewaatee Cheikh Mouhamadul Moustapha Ndar da koy laaj ngir yitte ju kawe jooj yi nga xamante ne ni def na ko te booba ay atam bëreegut booba ay atam bëriwut ginnaaw bi sëñ Modou di ko wax naa ko xam naa boo demoon ndar di borom ndar dana la fonk ndax euh, ni mu koy laaje daal ak ni mu ko bàyyee xel ca dara waralu ko rek lu nit tëgga ginnaaw Cheikh Mouhamadul Moustapha it taxawaay boob yi rek la ci sëñ Cheikh moom sëñ Modou leen boole boole ak boppam ak bokk itam boolewaat leen yoon wi itam boolewaat leen muy dañoo bokk ci deret bokk itam benn waajur bokk ci pas-pas yàlla itam dëppale seeni bëgg-bëgg ndax ku teel a ànd ak sëñ Cheikh la même bi fi Cheikh Mouhamadul Moustapha di ne muy tuut tànk wax na ni ci lalu sëñ Cheikh lay tëdd wax nañ ni sax sëñ Cheikh ci yërmandeem ci sëñ Axma bu reer bi musaan ñëw fekk sëñ Axmay nelaw da koy taaj ba mu yeewu waaye du ko yee tey du reer wàcc ko eh, day toog ba mu yeewu mais eh, léeg-léeg sax da daan yeewu làmb ay tuñam mu taq cere muy sëñ Cheikh day bëgg mu reer te du ko yee day jël cere ji di ko rëdd ci tuñ yi loolu lépp dafay wane rek ay nit ñu bokk nuñ war a ànde bu war a jëflante jëflante nu rafet ndax loolu dafay bokk ci liy dimbali njaboot gi ci li mission bi nga xamante ne ni moom la fi mag ñi bàyyi moo taxoon gannaaw sëñ Modou mu jël sëñ Cheikh def ko muy léppam sëñ Cheikh itam bàyyi koog lépp ndax sëñ Cheikh mu daan toog ci réew mi bariwut bari woon na ay yitte tabje goog yi mu tabje woon moo taxoon mu jël sëñ Ahmadou yóbbu ko Tindodi te Tindodi sëriñ Cheikh la fa sëñ Moussa daaloon bi mu demee ba ba galfan wóotu sëñ Moussa ci jataay bi yitte yi bari ab yëngutoom yi itam xaw a bari te lu ci bari day génn réew mi mu jël sëñ Ahmadou yóbbu ko 1948 boobu mu toll ci ñaar fukki at ak ñeent fekk fa ay mag yoo xamante ne nii ci sëñ Moussa lañ tàmbale woon fekk fa ay mag yoo xamante ne nii eh, man na sëñ Touba lañ tàmbale woon loolu ci jikkoo rekk la leen mën a yilife mu doon nit ku yaru nit ku xam te xàmmee ku bàyyi xel lu bari mu nekk fa ak ñoom ba bari na fa ay turandoo yoo xamante ni naw ko ci jikkoo moo tax mu am ko muy aw doxalinam te mooy li sëñ Moussa daan wax rek ni àdduna bépp mënees na leen a sol ci menn mbedd waaye mbeddum teraanga lay doon teraanga jooju yi rek la nekkee woon ak ñoom ak di leen taxaw ci bépp xew-xew bu mu mën di doon muy taxaw ci seen wet noonu itam la taxawoo woon sëriñ Cheikh ba yitte yu bare bari yu jëm ci teqantal ci njaboot gi moom la ko bàyyee woon jëm ci tuddi doom yu jëm ci fasub sëy jëm ci defare ay nit yoo xamante ni dañoo réeroo ci seen biir jëm ci wutal talibé ay dëkkuwaay pàkk ak yooyu yooyu yëpp moom la ko sëñ Cheikh féetale woon moo féete woon sëñ Cheikh mu doon borom yitte ju kawe itam nag loole lépp mu téye ko damay wax ni diw talibeb diwa moom gannaawam lañ ko xam wala kii ku mu yaakaar bi mu fi nekkee kuñ fa indi moom la ñu wooy mu génn taxawu ko ñaar ñu béjoo it jàpp na ni moo leen war a lijjanti te dana leen lijjanti lijjanti wu efficace woo xamante ni nii seen diggante dana des di rafet te du am benn ñagas-ñagas gannaaw bi. itam la doon dunde ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gi ci cër yi mu leen war a sédd cër cëri kilifteef tàmbale ci sëriñ Mbàkke màddina sëriñ Dan Xariloo sëriñ Aliou ak ñi nga xamante ne ni moo leen mag di sëriñ Saliou ak sëriñ Ibrahima sëriñ Xaadim ak sëriñ Ahmadou Mokhtar ba ci sëriñ Fàllu noonu itam la ko seqewoon ak jigéen ñi kenn ku nekk mayoon na la ci boppam loo xamante ni jàpp ni yow rek la ko jox soo leen fekkoon ñu daje it da ngay defe ne ay doom yi bàjjan lañ loolu suñ borom defaloon na ko Cheikh Mouhamadou Moussa ci ay doomam bu ñu jàpp dajee dangay ngay defe ne ay doom lañ même signal yi mi nga xamante ne nii moom la bokkal wenn waajur boo ñu dajee da ngay defe ni signal yi mi bàjjanam da ko jur te loolu lépp wane aw yoon la rek ci ni nu war a àndee ni nu war a wóolonte ni war a doylonte ni nu war a joxante cër ngir sàmm ormay sëñ Tuubaa ji te loolu moo doon bëggug Cheikh Mouhamadul Moustapha koo xamante ni moom la dénkoon njabootam ci ñu ànd noonu itam la leen dénke woon ci ñu joxante ay cër noonu itam la leen bàyyi loo woon xel njabootuk sëñ Tuubaa gi te xamal leen lu jamono yàgg yàgg yàgg yàgg njabootuk sëñ gii mu jural boppam ñooy doon seeni kilifa ndax sëñ Bàmba leen jur loolu itam doon nañ ko bàyyi xel mu doon nit ko am relation nag koo xamante ni mbooleem kër yoon wi ñëpp loolu la sequt ak ñoom waaye la ko waral it mooy dañoo bokk barab yu ñu yaroo ndax noonu la meloon ak sëñ Modou Bousso Dieng noonu la meloon ak sëñ Modou Rokhaya waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine moom benn lañ ñoo bokk benn waajur rek moom amut woon frontière ci seen diggante bu doon taxawaay bu rafet. boo xamante ni noonu la taxawee noonu la ëmbale woon yërmande mboolem bindeef yi doonul woon it nit ku jafe ndax nit ñi boo leen bëggee lijjanti doo jafe da yomba accès moo tax ëpp ci jataayam buntu kër ba génn seesam saa yoo ko buntu kër ba xamal ni daa génn wala daa dugg ci biir tuuti dallu ñëwaat ci biir doon nit ku yaatu xajoo woon ñëpp nga xam ne buñ doon tënk ci ay jikkoom yuñ mën dañ naan nit ku woyof la te cër bi ñëpp am ci sëñ Tuubaa lam waaye cër boobee jumtukaay la ko defoon ngir liggéeyal sëñ Tuubaa muy kenn daawoo ko gis joxoñ sëñ bi déedéet du ci melokaanam du ci aw waxinam du ci jëfinam te sëñ waxoon na ni képp koo xam ne des na la tudd di ma tudd yaa xam loo mën a doon ci man te nit jógoon di ma seet si du ko jaral agsi ndax saw melokaan Sëñ Tuubaa nee doo jéggi siraat mukk te la ko mag yow musta wane benn yoon ci jëmmam loo xamante ne nii daana tax ñu xeeb sëriñ bi wala ñu xeeb kër gi nga xamante ne nii moom la ko yàlla boole looloo tax sun boroom ni mu jëfandikoo muy coobareem muy bàyyiwu fi takk ndeer boo xamante ni nii moo ko jural boppam waaye am na fi doom yu ñu ko jural ndax sëñ Moussa daana wax mag ñi léeg-léeg ni leen mbaa bëggu leen su ngeen amee doom ñu yor leen ñu ni ko ah, an kay mbàkk ñun de loolu la ñuy ñaan mu ni yéen kat lebalu leen seeni i bàyyi dara man ngeen doon liggéeyal maa leen di jural doom yi leen di yor moom nag fa tabaarakallaa loolee mënees na ko dëpp misaal ci moom ndax bàyyi na fi ay doom pas-pas doomi xol ñoo xamante ni nii ñoo taxaw gannaawam fas yéene ni kër yëpp di dunde noonu la këram di dunde waxtu ci nekk kër gaa ngay riir ndax sëñ Ahmadou moom sëñ Aliou ma nga fa euh, mat na la mu doon lañ ko bàyyi woon ma nga ca muy jaamu yàlla ak liggéey ak jàpp boppam gàttal ay tànkam gàttal aw làmmiñam ñu sàmm lañ ko doon sàmmloo njaboot ga fa nekkoon ànd ak sëñ Ahmad déngi déngi wuñ jëm fenn ñoo nga fa téye rek lañu waroon a téye te mooy lañu àndoon ak sëñ ma di ko dundal loolu responsabilité seen kaw la gàccu ba keroog ñuy fekk sëñ ma ndax wa ma ala xalaf illa an yasuna asara salaf li war ci ki wuutu mooy sàmm lim fi fekk rawatina nag kóllëre goo xamante ni da nga ko séq ak nit ba suñ boroom ñëw akub dogalam mu dem barsàq bàyyi la fa la ngeen bokkoon ne mu bàyyee la ko war nga koo téye ba keroog nga koy fekki loolo la njaboot gi def muy turandoo di di dongay tarbiya di mag ñi nga xamante ni moo leen yaraloon boppam toqi leen ba teg leen ci yoon jéego yooyee rek ca lañ teg seen tànk bis bi nag la le cinq lay doon ci mois de juin ñu ciy woo mboolem taalibe yi Sëñ Tuubaa yëpp di woo mboolem umma islamiya bépp ab jullit la bu fi nekkoon nekk ci li ko war ba suñ borom dogal mu dëkkaale ak borom bis boobee lañ koy wooteel di ci tàllal loxo ñëpp di ci ñaanal itam mboolem umma islamiya bépp fu fi ab jullit mën na rek ñoo ngi lay ñaanal yërmaande yàlla ci biir suuf fu fi jullit nekk ci kaw it ngi lay ñaanal njëggaluk suñ borom ci darajaam ci barkeem ak barkeem gaa yi ko meññ ñu ngi ñaanal ñëpp ak njëggal zahiran wa batin di ñaan itam réew mi suñ borom def ci jàmm nawet yi suñ borom barkeel ko suñ borom tàppe xol yi ba ñëpp kenn ku nekk la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom loolu ñu ngi koy ñaan ci barkeem ci darajaam ci baay barkeb gaay yu ko meññ buñ ne suba la bisu màggal ga nag danañ amal ab conférence boo xamante ni nii dongay takk der ñoo koy def conférence boobee itam kenn lañ ko tuddee muy Serigne Madiba Sylla bokk ci njaboot gi ndax ma ak xarimaam ñoo bokk ndey ak baay xarimaam a jur Aminta mu jur Cheikh Mouhamadul mare ma moo jur Matar Marema mu jur sañ Dind kon bokk la ci deret yoo xamante ne ni fa mu waroon a taxawee taxaw na fa moom it jeexal na ak dundam lii ñuy waxtaanee ci sëñ ma rek mënoon nañu xeet turu sëñ Axma teg fa turu teg fa turu sëñ Madiba Sylla moo ma teg ko sëkk. màggal gi la vingt cinq juillet lay doon mi ngi am ci kilifteefuk Cheikh Mouhamadul Mountakha Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi kilifa yoon wi ci kilifteefam lay ame ci njiital jëwriñam ja ko nekkal Daaru Xuddoos di sëñ Ahmadul Muxtaar ak jëwriñu kër ga sëriñ Cheikh Mbacke Madina waaye màggal gi mi ngi am ci njiital sëriñ Cheikh Mbacke Aliou mi nga xamante ni moo mooy kilifa njabootuk soxna xarimaam gépp moo ko jiite bàyyi kook rakkam di jëwriñam di léppam sëñ Ahma Aliou ñu nekk ci boppu njaboot ga te sëñ Aliou yebaloon ko fa ci baatum ndigal mu ànd ak njaboot ga waaye ànd kook njabootuk Daaru Xuddoos gépp mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Moussa gépp kenn desut lu ci waay man ci jàng alxuraan ba keroog ñuy àgg ca bis ba ak salaatu na nabi ak istixfar bu bis baa ñu dajee ci kër ga mottali ko noo ngi ciy tàllal loxo ñëpp noo ngi gàttal foofu suñuy kàddu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.